de Poudou à vibré au rythme de sa journée culturelle. Cette édition a été marquée par une série de revendications portant sur des problèmes cruciaux qui entravent le quotidien des résidents. Poudou dëkk la boo xam ne si ñëpp xam nañ ko ci wàllu mbay xam ko ci wàllu sàmm. Connaître Poudou, c'est savoir que c'est une zone d'agriculture, d'élevage et de pêche. Cependant, tous ces secteurs sont confrontés à des difficultés. Nous n'avons ni eau ni électricité. Les rues sont étroites et l'oignon qui coûtait 17 000 francs est maintenant vendu à 3000 francs. tey bu demee bi saako bi di jar 3500 nga xam si da nga koy liggéey plus de euh, euh, mois wala 6 mois ngir tali boo xam ne si dafa jóge ci biir dëkk bi. aujourd'hui nous demandons une route qui passe de Kër Koura. yàggatu ko sàkk lu mat kon ñoo ngi Ces doléances ont été présentées en présence du préfet de Sakal qui s'est engagé à les transmettre. am na ñu yëkkati woon kàddu wax fi yenn mébét yoo xam ne am na si tund. Nous allons transmettre toutes ces doléances à nos supérieurs. bu ñu delloo dinañ ko jotale suñuy kilifa. La journée a été marquée par la présence de l'imam Serigne Moustapha Mbacké, figure respectée de la communauté ki a prié pour que la paix règne au Sénégal.